asalaamaaleykum wa rahmatulah téléspectateur Equivox TV yi maa ngi nuy di nuyu di leen tey nag ñu ngi samedi 22 mai 22 mai 2021 ñu ngi fan village artisanal bu Soumbédioune bu Ndakaaru ku fi woote Baba Diop borom Thiam production woo fi Gamou Gueye ak ki nga xam ne moom mooy soq signature contrat ñoom Mbagnick kayre ak Jacob Balde Mam Mor bu Daaru Maud Séréer Kaw Cissé numéro 2 mel ni kon fii nar naa jax tey fi ñu nekk nag mooy faro faro defe naa ab place la ci fii ci medina fii mooy faro faro am na ay xew-xew yu fi faral di am fii mooy faro maa ngi lay bëggee baaba ah Bas si loo ne. sant yàlla ñu nekk mooy fan faro laa laa gis ñu bind ah. moo xam fii. copain fii mooy fan. fii mooy faro faro. faro lan mooy faro. faro bu wat nuyu bu nekk biir village artisanal. voilà. guddi daal gars yi dañ fi ñëw di fi teew di fi. waaw waaw waaw di fi rek. waaw di fi bànneexu. tey ngeen woo fi. waaw pour di signature contrat. diggante Gamou Gueye ak ak Sokh. waaw. Gamou Gueye Sokh. waaw ma la ma ñu neex. bilaa am di mu. waaw maa ngi lay siyaar Babacar. di rek. nga jàmm waaw ñu ngi sant wér kay. naka yëngu nice ndeysaan yàgg maar kaay waaw way yaa ngoo kilifa yaa ngi nii suñu papa Ibou ñoxo ñoxo baay ñi ay grand frère Baba Diaw lañu kële mooy Ibrahima sëñ Mbàkke Medina maa ngi lay bëgg Abdou Salam ndeysaan mel ni ko tey ñu ngi fii mooy faru na leer daa war a leer Gaaw Cissé numéro 2 mbër yaa ngi nii toog xaaral ma laaj faw ma laaj kii papa lay ziar. fay naa la dama dégg ñu ne fii mooy faru faru lan mooy faru. déggu ma la bu baax. déggoo xaaral ndox mi ñu wàcc tuuti ma ñëwaat. waaw sabar yi la quoi. ngi ñëwaat. wàcc ma ma daan wuurul ku daan da ngay féete kaw mbër ñi bëre leen. almaami Abdou Salam maa goo gis boo ñibbee ñu ñi la sa dàll mënoo kenn. jaatal woo naa laa doo ñaaw mbiri fiya duru dimbe sim laa woo naa laa doo ñaaw danga gore naru xaadime sim laa yeey kur ko yaa mbay mbay naaru misaan naaru xaadime sim laa yeey kii ñu wan ginnaaw moom moo di Gamou Gueye maa lay bëggee Ibra mu mel ni kon géej gaa ngi ni fii ñu ñëw tey si village artisanal Baba Diaw woote fi soq kera daje woon na ak moom Gaye Ndiaye mu am lu ma wax gàmmu Gueye ngi tontu du forox sama gaay maa ngi leen di bëggee copain tribunal ah Baye Moussa la Cap waa ngi si jàmm waaw ñu maa ngi lay ñu ngi fa waaw ñu ngi sant bu baax. kii mooy Ronaldinho wala mu Ronaldo wala Modou Diakhaté numéro 2 bu la ci neex. boo si wax rek baax na waaw boo si wax rek dem na. naka leer yi. sant alhamdulilah. fi ngeen toog de daa mel ni miin ngeen ko moom ndox. dafa leer fi ñu toll brise normal la ñuy jël ñu ngi jël brise normal nice danoo gis danoo gis danoo gis danoo gis loo xamante ne dañ koo bëgg suñuy xol waaw billaahi géej rek waaw ay lébu lañ sant pour cent lébu. kon fi leen promoteur bi indi tooñu leen. non tooñunu tooñunu tooñunu nu ngi jàkkaarloo géej gi nii toog di xaar suñu adversaire ñëw waaw. soq bu Pikine. ah soq sa dugub. waaw dañ koy soq de. ndax dana yomba soq. amul lenn lu dul yomb si nun ku ànd yàlla. amul len lu la yombul. soq day kera ne na ma day dox daw day dox jàpp daan. dama ne la nun nu ngi toog di ñaan sunu borom ba bés ba jot. nu xool ba xam dëggam dina sooxa wala du sooxa. gàmmu mi pare. ah gàmmu ñaan nan yàlla mu pare. jàpp sa waay pare na est nu ngi si nu ngi si nu ngi si di liggéey. waaw. loolu leer na. Ronaldo wax loolu Modou Diakhaté numéro 2. xanaa mën naa toog fii jàkkaarloo gàmmu de. maa ngi lay bëggee góor yàlla. gàmmu géy Bouri Fisk. <laughs> gàmmu si loo naka yëngu yi. ah ginnaaw bi sant yàlla julli si yoon bi sant suñu ñaari waajur di baalu àq ñëpp di baalu àq ñëpp di wax yàlla na yàlla def jàmm rek incha allah rabbi. gàmmu mel ni combat boo xam ne yàggoon na daaw ngeen waroon a bëree bañ na suba ngeen di bëree corona ba ñoo yàq combat ba loolu bi mu amee loo yëg. a ah, dañ ko sant yàlla rek di xam ne ndogalu yàlla la suñu borom jaamaa pexe yàlla dogalam bu santee ko yàlla bu baax. di ñaan feebar boobu yàlla bu mu fi amati waaw waaw. diggante sa adversaire kër fekk naa ko Gaye Ndiaye ma ne ko ndax pare nga mu ne ma lool jarul sax ndax daaw ba ren ku parewul dootoo pare moom pare na bu yàgg. waaw ah, loolu garaw loolu moom la concerné a ah, loolu moom la concerné waaw. loolu ah. dox gi mu ne day dox ci jàpp si la daan si la nag concerné wu na lool. yàlla baax na daal ma daal lépp maa nga bàyyi si loxoy yàlla rek. waaye gàmmu nag buñ ne yàlla baax loolu moom ñëpp xam nañ ko mais yaag soq la ñu wax li mu ne day dox ci sa kaw jàpp la daan la loolu doo si wax nga ne yàlla baax na yàlla baax na. non loolu noonu du si wax loolu du ma si wax ah loolu du ma si wax damay bàyyi ba bës ba rek incha allah rabbi waaw damay bàyyi ba bës ba rek man kenn xamee ma ay wax quoi moo tax ni ma meloon la mel moo tax yàlla baax na ñaan daal yàlla na yàlla may ndam si kawam. gàmmu mbaa tiito tiit waaw ma naree tiit bàyyi waay ngay waxee ni da nga mel ni am na looy sóoraal ci soq de. non man nii laa mel man nii laa mel naturel Babacar man nii laa mel nii laa man daal maa ngi koy di ñaanal sama bopp jàmm yàlla na ma yàlla may si kawam incha allahu rabbi. waa Pikine ngay bëreel de. ah loolu man Pikine dama fa am de. loolu garaawul loolu kuy génn di dem di bëri ji boo demee feneen di bëri loolu garaawul. kon daal yow fi mu nekk sa xel dal na. bu baax sama xel dal na bu baax incha allahu rabi. physiquement pare nga. man daal maa ngi si kawam daal <laughs> maa ngi si kawam. bu ñu newoon suuf léegi combat bi léegi léegi nga bëree ak moom. Ah, dañuy bëre gañ waaw dañuy bëre. tiitoo sa bopp ci mbapat yaa ak moom bu ngeen mbapatee. kala man déedéet amul dara lu may tiit. amul ngeen wë ngeen wëri bëre yéen ñaar jàppoo jaxasoo. amul dara lu ma siy tiit amul dara lu ma siy tiit man daal maa ngi woon sumay entraînement doon xaar ko comprendre di ñaan yàlla si yàlla may ndam waaw. fi mu daal foofu nga taxawee daal. man foofu laa taxawee waaw ba si kanam incha allahu rabi waaw. looy wax lébu yi. di wax lébu yëpp ñu ñëw jàpp si combat bi. di oo tamit waa Bawal. Bawal dama fa am ay nit. lu la boole Bawal. Bawal dama fa bokk. billahi dama fa bokk am naa fa turandoo am naa fa lépp waaw di wax di wax see anta mu wax gars yi ñu jàpp si combat bi. see anta man. see anta mel na bu bool reefan. bu reefan waaw. waaw yow Babacar yàlla baax na Babacar yàlla baax na di oo ñoom mbay ñoom ñëpp ñu ñëw jàpp si combat bi incha allahu rabbi di oo waa Bawol yëpp ñu ñëw jàpp si combat bi sama mbokki lébu yëpp ñu ñëw jàpp si combat bi bàyyiwuma kenn waaw bàyyiwuma kenn ñëpp jàpp si combat bi maa ngi oo ñëpp waaw. waaw maa la gën a kontaan Babacar yow borom baax nga ko yow mooy loolu. ñu ngi taxaw ak euh, père Kayre di suñu père père ñu ngi lay nuyu di la ziar. maa ngi leen di delloo nuyu di leen ziar bu baax a baax di leen baalu ak di leen baal ak di ñaanal seen métier bi ngeen nekkee yàlla na ngeen si am ndam parce que métier boo xam ne da ngay poser question nit ki nit ki di tontu maanaam ñaari ñaar euh, jumte mun na am ci côté bu nekk.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 depuis papam la moom papam dafa bokkoon ci mag ñi nga xam ne fii suma jun saa yi ma daan bëre da daan ñëw stade muy papa Baba Diaw saa yi ma daan bëre bokkoon na si mag ñi ma daan dagg biye ñëw di ma seetaan loolu di dem di dem di dem ba mu dugg làmb tey ñoom Baba Diaw bu ñu duggee làmb yàlla man moo tax man nag ma am lu ma représenté ci quartier bi doon mbër yàgga jooy na il faut suma jun pour mu suqali ko il faut mu am euh, promoteur yàlla def na nag Baba Diaw doon promoteur donc dañ koy ñaanal nag ñu xam ne lépp loo xam ne mu ngi koy def ci làmb dañ ma ciy gis wetam lépp lu muy def ci làmb dañ may gis wetam parce que man dama yàgg a ñaan yàlla lu mel nii promoteur xale ñëw di jàppale xale yi. kon daal ñoom fii neex na ci yéen trop. neex na ci ñun trop trop beneen bi si jàpp nag mu doon xale bu am ambition aussi parce que li tax mu am ambition da nga wax léegi qualité combat yi muy taxawal. loolu pour nga koy taxawal il faut boo xoolee soxu gàmmu gay ak combat ci am ak yeneen yi ma xam ne mu ngi koy nësër kon ay combat amateur la tëgg soxu gàmmu gay nag combat boo xam ne na ci amateur yi bàyyi xel parce que ñaari xale yooyu ku ci nekk war nga da nga bëgg doon dara euh, ëllëg te man maa ngi leen di bu baax a baax a baax sox maa ngi koy suivre gàmmu gay maa ngi koy suivre te gis naa leen ku ci nekk liggéey nga lu tax nga daan sa morom moo tax combat boo xam ne la du ku la ne dafay yomb la day nax boppam sox bu ñu ko waxee day yomb nax nañ boppam gàmm bu ñu ko nee sox dafa yomb day nax boppam te lii man maa leen ko wax. di ngeen gis combat bu neex di ngeen gis combat boo xam ne danañ bëre danañ xeex parce que date bi yàgg na te ñoom ñaar yëpp depuis ñu depuis ñu renvoyé combat bi ñoom ñaar yëpp te duñu nelaw.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 loolu loolu noo ko déggee jéen waaw. waaw xam nga jéen jéen mu ngi fi rek doon ndaw loo xam ne rek comme comme ñi ma lim nii rek même génération la rek la may wax ndaw yi toujours man moom laa koy wax xam nga man li ma naan njaaxaan laa tëddee léegi la may wax sama doom moom laa koy wax làmb ji kenn mënul kenn da ngay liggéey ba dëgër gëm sa bopp ñëw la nga liggéey nga jëfe ko jéen nag mu ngi fi génn ci combat bu am importance. di profité sax di nuy sama président écurie mu ngi noonu taxaw ñu ngi ko ñu ngi fal jamono yëg lañ ko fal macha allah moom it vraiment ku ñu jig la parce que gis nañ ne daal écurie bi ngi avancé du dëgg. ba mu bëree pare wax nañ ay combat mais làmb dama ne làmb ku si nekk dafa am position bu mbër di taxawee mbër mu nekk rek saa yoo daanee am na position booy taxawee mais jéen maa daan booy bawol nel benn maa daan marle maa daan Koña maa daan Malaw Seras ah maa daan Youssou Ndour Balla Gaye wax naa Boy Baol defe naa de waaw kii ak dëgg-dëgg gi maa daan moo daan da waaye kan koñ kooku àgg na ci gars yi léegi nag àgg na ci gars yi li tax la li ma d'accord mooy VIP yi rek ñoo ko mën a may chance. VIP yi kese. ñoom ñoo ko ñooy bëreeg yéen ñu ne dañ ko may chance mais à part ñooñu ñeneen ñi nekk ci làmb yëpp. du may faral sax di juum dama ne Reug Reug Siteu euh, Reug Reug kii guy gi Siteu Papa saw ak kan euh, euh, nu mu doon Sa Thiès Moussa Ndoye Sa Thiès Moussa Ndoye Garga Mbossé Yékini Junior Diène mi ngi ci lim boobu ah, ñooñu rawuñu ko non raw xalaatuñ ko duñ koy rawee mbër yooyu nga lim defa ko ëpp ñu ko doole ëpp ñu ko sañ-sañ ñu ko bëre ëpp ñu ko ginnaaw kon kon kon kañ wax ji na fa ren dañ ko yow amatu ñu wax. mais digganteem ak sos bi ñuy wax nag. digganteem ak sos. <laughs> non sos dégg naa nañ ko ko jox nees moom nee na nees la soxla léegi. Ah. waaw lool yéen gis ngeen loolu non. mais moo jën du combat wala combat la. non moom kañ nañ ko jox euh, nañ ko jox nu mu tudd nees moo combat. nag sama sama gaañ la sos. mais père man si say wax de. sama gaañ la sama xarit la. waaw je le respecte mais absence bi mu def ci làmb Diène dafa liggéey ci làmb ba dépassé ko ci làmb mais jamono ji bu ñëwaatee liggéey ba war a bëreeg booy amuñu problème boobu xaw ma ndax ndax moom moo ko laaj wala laajuñu ko mais guddi yi ñu toll Diène bëreeg Zoss waxoon amul fu mu koy yóbbu parce que bu ko Diène daanee dañ naan xamoon nañ ko moo ko man mag la loolu la ñuy wax te loolu na ko mbër mu ndaw di moytu mbër mu ndaw da ngay bëreeg say moroom da ngay bëreeg say moroom làmb ji loolu lañ soxla mais ëll am na si loo xam ne tey bu ko stafu Diène jëloon kon ñëpp jéppiñu loolu la ñuy bañ nag ñun parce que fi mu nekk moom ñun xam nañ ko xam nañu xam nañ lim mën ak lim mënul. lim mën ak lim mënul. xam nañ ko mais bëreeg Zoss daal du avantage am moom. père bi fi may jeexaleeg yow mooy est ce que père nu su ma la déggee nga lim sànq. ne ñooñu mayuñu jéen sens. jéen VIP yee koy may sens est ce que ràccoo jëmale sa kanam. yàlla xam ne man li may wax toujours dama koy gëm parce que ni ma la limal rek ku leen daan tamit nañ waxante dëgg ñi ma la a nii rek ni ma la limal nii rek yàlla xam na ne ku leen daan xëy na sax ni mu demee la mais mbër yu bëri egg nañ tey feeñ feeñ fa egg li def jéen def defuñu ko juñu nag doy na borom xel. jéen kenn du ko wutal yoon jéen ñun wutaluñ ko yoon combat yëpp choc la. combat yëpp mu bëre choc la bëre te dañ naan sax du si génn moom mu ñëw génn si avec la manière kon kañ moom mooy fi mu nekk tey moo fa yóbbu boppam. mais utaluñ ko yoon. parce que li tax bay bañ looyu boo léegi boo ko tëlee yoon. mu war a bëre gaay day am problème te loolu la ñuy bañ. nay mbëkkanteeg gaay rek. nay mbëkkanteeg ñoom nay mbëkkanteeg mooy président Aigri Soumbédioune yaakaar naa maa ngi lay nuyu tonton di lay ziar. Euh, maa ngi lay fay maa ngi tudd Yatou Thiam. waaw man maay président des bijoutiers de Soumbédioune président du groupement interprofessionnel de Soumbédioune président du groupement de lutte de Soumbédioune. Aigri Soumbédioune yàgg nañ ko dégg ca booy Kayre ba tey ay doomam nekk fi ñoom jéen nag xale yi ci ginnaaw mag yu mel ni ki noonu yow yaay président Aigri bi depuis kañ lañ nommé comme président. voilà biñ ma nommé léegi mi ngi toll ci deux mois. mooy bi jën di préparer combat bi rek ci lañ ma nommé pour ma nekk président écurie bi li tax ñu nommé ma nag ñoom ñoo ma xoolal seen bopp xam lan laay liggéey ci biir gox bi ànd kook ñoom rawatina ma nekk artisan ci village artisanat depuis 1975 ba nëga ni defe naa xam naa fi dara ba xëy nekk président bi jiite artisan yi yëpp ànd ak artisan yi nag ak écurie bi ñu lëkkaloon nekk bi benn ak géeju Soumbédioune kon euh, tey sa relation ak euh, écurie Soumbédioune euh, boo ci doon gën a indi ay leeral lan la. waaw relation dëkkandoo ma dëkk ci Medina bi dëkk fii ci koñ bu ndaw ànd ak ñoom ci lépp bi kayre di bëree ñoo ngi ànd ci supporters yi ba yàlla def mbir mi tey jii dox ba ñëw ci samay loxo ma xam ne nag fi écurie bi toll tey su ma sañoon. du ma ne liggéeyuñu mais bëgg naa ko gën a yëkkati ba mu gën a kawe moo tax tey jii contrat bi ñu indi ko signé ko fii ci village artisanat ñu xam ne 1620 artisans ñu ngi derrière le jeune kayre euh, kon daal jiyén li papaam wax sax ne am mbër ëpp ko maanaam mbër ëpp ko ginnaaw am na ginaaw loolu dëgg la. waa lool moom mën naa koo seedeel xam naa ne ñii bis bu ñu jógee ànd ak jiyén dugg ci stade stade dootul wax maa la wax loolu. ay adversaire am comme li ci papaam waxee awooy ah kenn du ko wutal yoon c'est un jeune na dem parce que moom fi mu nekk dara jomb ko lu ko fitam maye mën na fa dem mais am na ci ñoo xam ne comme li papaam wax ànd naa ceeg moom combat yooyu ko fenn leen siyaare may ma fii jërëjëf ñu ngi leen di siyaare bu baax a baax a baax di leen bëggee mbokk yi combat bi dafay combat boo xamante ne combat bu am solo la ci làmb li tax ay xale ñoo ko tëgg di ko bëriloo ay xale waaye waaw man tey xaar ma xaar ba mu pare ëppoo leen ma gàllaaj waaye waaye làmb ji jotagul nag le six la waaye percun wax leen percaam ñamal baax na de eh, eh kii CNG moom CNG bu bees bi niñ sévère ci yii hm. Modou nan xam ni combat bi commencé gul. Kër Massar jëf gars yi kontaan nañ ci yéen mbokk xanaa xamoo bis bu ñu demee ci làmb ba Ama Balde war a dajeeg Diène Kairé laa <laughs> ilaha illallah pël bu rafet Ama Balde war a dajeeg ñu war a def contrat du ma ko animé de saa yi ñëwul ñëwul nag woot embouteillage bi moo xat Pikine instant yi mënul pont bi kenn mënul dafa xat faale woo la dawul aja maa leen nuyu ginnaaw ma sant ginnaaw ma sant yàlla julli seen di sant samay ñaari waajur di sant waa Medina yëpp Medina Fass Gueule Tapée Colobane waa Cité Mari waa Darkete Cité Asegna xaar yàlla gànnaay fi ñëpp. waaw di sant waa Kër Ndiaye la waa Tëngéej waa Jokkul di ñëpp waaw. Mbagnick Jacob Balde yéen teelu leen bëree sax loolu laa lay laaj. non Jacob moom moo laaj sama avance quoi waaw. yaakaaroon si laam mais moom bëri man te dëggalul boppam bi mooy deux fois du ñëw signature bi man xam na quoi. ñaari signature yëpp fan la. benn bi fii la mais benn Pikine la Pikine moom dama naa mais fii saa ñu ko invité fii foofu ñun ragaluñ loolu. mais moom it muy xale boo xamante ne nii yéen ñaar da ngeen a xaw a am loo leen bokk yéen ñaar ñëpp wax naa ko léegi da ngeen a judd fekk ngemb li ci kër gi mën naa ni li nekk ci yow am na ci lu ne ci moom xale bu mel noonu préparé ko. waaw mais loolu am na solo mais làmb liggéey laa gëm quoi entraînement laa gëm gëm sam bopp loolu ay détails la quoi suñu waajur ay champion la mais ñun nañ dëggal suñu bopp dëggal suñu bopp loolu ay détails man gëmuma loolu. xale la boo xamante ne bu am fit. ah fii fit fii baax mën rek yow tamit man xale la boo xamante ni ci biir bëreem bu jàppee balaa gars yi s'il ñu déglu wax leen ñu déglu. waaw c'est la boo xamante ni ci biir bëreem bu jàppee balaa bàyyi kii muy bëreel daa yegg ci suuf. non maa ñoom bokkul de man bu jàppee du def dara bari Serigne Bamba waaw bu jàppee moom du def dara jàpp ñàkk jàpp bu ma jàppee ma daan ko man ko jàppee daan ko. bu la jàppee. ma jàppee ma daan ko man mu ko jàppee daan ko incha allah. muy xale boo xamante ni tamit xale bu ñeme xeex. mais Jacob lu mu indi rek fii la buujoo quoi sans jaaxaan nag voilà lu mu indi rek fii la buujoo incha allah su kàttanu yàlla. le 6 sama le 6 la moom xam na loolu baax a baax ñun daawuñu loolu. damay gis ci yow booy wax da ngay wax ak kóolute da ngay wax ak certitude. non man ni laa mel na da naturel nag man ni laa mel nag wax dëgg yàlla yàlla ni ma bindee quoi. dina gaaw. ah comment bi sans moom rek dëgg yàlla. bu ñëwee bu dëgëlee boppam mu gaaw bu yéexee mooy loolu quoi. lo maa ngi woo nag waa Mbirna di woo ku mel ne Cheikh Ba ay Bamba Fall gaa yëpp di woo waa Derkele ku si mel ne DG Port Bamba Fall di woo booy Aléa nag sama mafia bi waa Aléa waa Famelas waa ñëpp ay ñoom Cheikh Faye ñoom Paalu ñoom Cef ay Jili yoo gaa yëpp ay Ten di woo gaa yëpp nag incha allah ñu def mobilisation dafa ba bagage. waaw waaw ñëwal gaaw bon ñu xool ñu jàkkaarloog tele bi parce que yéen ay mbër yu mag ngeen ñu jàkkaarloo gaa yi xàmme leen moo gis nga kaaw ah gis nga waaw ah, gis naa ko gis nga moo gis naa ko kii paala barki alxuraan su moo yàlla naa laa lay def maa la man maa la ëpp doole man xale bu ndaw laa kii tey ak ñoom général Malick du taxaw yow barki alxuraan prix waaw salaamaaleykum ginnaaw yàlla jul si yéen sant sama ñaari waajur maa ngi sant ñu fi teew ñëpp di sant sama booy mandal quoi ñoom Aliou Ngaga xam nga ñoom Mame Mbaye ñoom sama booy mandal yëpp di di woo xam nga waa Bawol bi yëpp xam nga di sant booy Gaynde Mole ñoo ko sant bu baax xam nga te suñu idol la ko doon yàgg di roy xam nga suñu papa booy Gaynde Mole kii nag li muy wax nii ay waxi dox la Modou Mbaye ma la ñuy wax boo génnee fi dañ laa bëri dañoo dof yaa wax boobu dafa naqari boo ko déggee mais boo ko xalaatee xam ne dëgg la parce que saar yi ñoo tax ay waxi dof ay man xale la ay man paaga nangam nangam kii boo xam ne ay wax paa la waxi dof la. moi je suis jeune ba ngay sax bëriwul ma. kooku man na loolu sax moom. Modou Mbaye war na alxuraan su ko maa bi matee deux minutes yàlla naa maa la mun fuuf. mun maa bu doole maa ko dagg xam nga ko moom. ki la bëgg a xam am naa lu jënd. prix prix yow maa baax wax la ni ndaanaan la. li tëddu ma ndaraam bi ak combat bu ma tee deux minutes yow waa baax Modou Mbaye kii bu fekkee daa bëgg def comédien ah, la dem si waa mbëru ji def comédie fulla la barke Serigne Saliou Mbacke li wax ma day gëmu ko barke alxuraan gëmu ko fulla lay wax de Modou Mbaye yow xam nga ne kii fu ko maa leen mën conteneur et eh, Père Thiam bul noté de Père Thiam bu leen bind jàpp leen si bu leen bind loolu bu leen bind loolu bu leen bind loolu bu leen bind eh, eh, yéen ñaar booy yéen boo leen amee fit yéen ñaar ñëpp ku ci nekk boo ñemee sa bopp sa moroom kaa leen fii ay tapet ñeen booy waaye booy da ngeen di sóob kaa leen fii waaye yéen kaa leen fii ngeen ba wax ci foofu sëñ bi taxaw ci kanamu caméra yi nii di ndellu rek cër su ma a daanee daf may yóbbu si toog wala gàmmu gay moo tax ma respecté loolu sam bi ma doon ko dama jël ko sa si moom la dépendre bu nekkee comme combat mu mujj bu ñu ko bëree damay tax ñu machine yi ak Serigne ma daan ma doomu daan mais bu tawee une minute duñ ko am barke alxuraanu karim kon neex na ma moom kon du damaa ko signé fii man amul ginnaaw ma ko teg boo nekkee ma tur la ma wax bu bëri ma daal dégg nga man doo ma tàngee loolu nga pour fa solu demoo man boo ci wax doo ma tàngee man man may kenn puus ma man non da ngaa ko rek soo bëggee ma jox la yeneen suuf may wax ay at Amour Mbaye Amour dañuy nuyoo xam nga personne lañ diggee dañuy nuyoo quoi dañuy nuyoo kàddu yu mel nii man dama la xam ne su tey. moom baax na lan bis bee ko lan. bis bee ko lan wane yi dafa am luñ foog. te loolu amul dama leen di wane loolu amul loolu liy jaay noonu dama leen dama leen fuut. parce que Seera Fall. dinaa fi sant yàlla bi émission bi di sant suñu ñaari waat di sant suñu ñaari waat di sant suñu ñaari waat. ñaanal sama yaay dem tëdd yàlla suñu nawet bi kawam. ñaanal sama papa pour ko fekkee sama njëriñ. di nuyu waa Daara Diouf di nuyu waa Kër Massar bi lay tàggatee commune Diakhaay bi Sangal Sam Diouane Pël Kër Ndiaye Lo Kër Daouda Sarr Tëngéej bàyyi ma fenn daal maa ngi woon ñëpp ba ci koñam moom Fass Mbaw maa ngi woon sama mafia bi nekk Fass Mbaw bu dëgër sax bu dëgër bu dëgër kii bu bëggee suba suba suba suba suba suba ñu indi loo xam ne loolu lay sol wala loolu lay takk moom barke Serigne Touba Mbacke ko ñoom laay fanaan sama naa ko 15 jours ak daal jours su ko mel ni laay fanaan moom xam na fi may fanaan fekk na moom ma toog si kaw mu doon di ko xaar dama waroon indi problème ba mu ñëwee dafa jënd glace moom mu daal fekk naa ko koñam mu gaare motoom dem si diini ma toog di ko xaar ba mu ñëwee dafa jënd glace ak sëñ bi da wooy ñam sama koon naa ko envoyé gars yi doon si Modou Modou dëgg dafa neex yàlla xam nga ma la wax kii maa ngi wax bala tege lan loo tege lan loo fu nga xam ne si loolu pour taamu mais gis mu ne engagement la lool di ko ko tege moom sama koy dafa fekk am nga def dañuy jàpp maa ngi yónni dafa def ko ci glace kii soxla ko ci moom dara xam nga daa ko soxla jéew ko rek ko jàppale ci bés bi ba bés bi réussir allah parce que ay ndaw la mënuñu man ma sax wax moom xam na loolu mais li mu def nii dafa ci man parce que loo gis benn jeune moom tamit jeune na gëm boppam gëm liggéeyam kon maa ngi mën di yokku di bëggee képp kuy bëggee baaba di ko wax en dehors lu làmb ji waaw parce que lii rek lu rafet la mais bu tuddee artiste làmb wala xaar artiste yëpp ci arène ba waaw incha allah dinaa woo samay mbokk dinaa woo ñëpp incha allah ñu dooleel bés bi parce que lii dafa rëy parce que c'est si une première ñu ngi koy doog a tuddee làmb xaw ma ci dara ñoom Alioune Fall boobu ba léegi fan yii yëpp ñoo may wax li may def moo may jàppale di ma wax lu may def xaw ma ci dara mais incha allah lépp lu war ci bés bi ko def ba mu taaroo incha allah. jaajëf am na dana fa waaw lépp yam mën naa waaw mën pare sax combat may concert foofu incha allah. mën naa ne mën naa ne. mille fois dinañ fi lépp mën naa ne. xaaral lépp. kontaan ci yow. jaajëf kontaan nañ ci moom bu baax a baax a baax a baax mbokk yi làmb tollu foofu. yéen ñaar ñoom seetaan nañ seen combat yu mujj waaye bu ngeen xoolaatee tolluwaay changement am na sox foo waajale combat ak préparation bi nga def. waaw man ku ne xam ne si états-unis laa jógee Gambie di leen ñaanal jàmm ak tawféex di ñaanal suma papa ci li mu mën père booy na la Kounda Junior suma xarit ak Garga Kalso suma doom ndey nga xam ne mu bàyyi ko benn yoon comprendre nga di ñaanal suma coach ala di ñaanal ñoom Malick ñoom Julde ñëpp comprendre nga combat bi ku ne xam na ne ñaari at lañ ko préparé Gamou Gueye su parewul daa yegg waa Tëngéej man suma parewul damaa yegg waa Pikine te benn Modou ñun suñu combat bi mu yàqoo amateur yëpp ko ñax ci jooy ko ni mu doon na ñoo bàyyi ñu bëri parce que tolluwaayu gàmm gayu soxla ñaari xale yoo yoo xam duñ négocier bis kon ñun dañu rusloo amateur yi bis boobu ñu ñëwee gàmm gay ku ne xam na ni gàmm gay ñu dellu ginnaaw mbër mu ñeme la day attaqué day xeex waaye sox ku ne xam na ni bëggit la def te xale la ma am fu ma war a jëm nag soxla bis bi ci lu wér gàmm tolluwaay bi si diggante man di laa mel la man di laa di laa ma sa toll waaw di laa mel maa ngi dëggee Rio waaw Rio la ñu am mooy suñu États-Unis instant bii nii bëgg nañ dem nag mais mënaguñoo dem instant bii ñu ngi Rio waaw di waajal combat bu baax waaw ñu ngi si doon daal dañu naan yàlla yàlla may ndam. léegi ñu dugg ci biir combat bi àddina bu sifflé nan lay demee da nga daan ñëw. dañuy daje ndax xam naa ne waa ji day ñëw. jàmbaar la. lu mu laaj rek. lu mu laaj rek incha allah moom la ñuy def. non non lu mu laaj kay ne lu mu laaj ay naxante la. arbitre mos na sifflé te doxoo sa paa ñëw arbitre mos na sifflé te soog a def lu mu ñëw nañu daje rek jëflante mu jeex ñu ñëw. lamb la lamb la daal. ku mu laaj rek incha allah. non eh yaa ñii ngay jéem a lëre mais man soog xam naa ne gàmm bi bu arbitre sifflé day teg paa ñëw mais yow xamal ni bu arbitre sifflé soog day teg paa ñëw jëflante. awa bi yaa xaar. ñu tuddee combat bi El Hadj Keita seen frère seen morom liggéey moo ko liggéey liggéey moo ko waral soog mais wax El Hadj ak xale yi moom ñu ngi réew waaw boole si Assane Bongo parce que ñun ñëpp ay jeunes lañu gis nañu taxaw faa El Hadj Keita combat yi jàpp si mbërum ndaw yi ñu ñëpp jàpp nañu ko am loo ñu jox ñu dañ lay dégg am na waaw loolu la Assane Bongo moom comme bind na li des gisee bi yëpp kon ñu jarul ñu dugal ci gisee bi. waaw ñu may nga may. Modou. waaw hélas nekk ku ne xam ne daanaka moom mu jël loolu ci relation naan ko loolu may maa ko loolu ay caaxaan fii waxal nit bu mu defoon ci naa fekk la bokk mais ñun li ñuy wax nii ku ne xam na ne El Hadj Penda dafa mën a woy dëkk yàlla na ko yàlla lafal cat li nga mu koy wax dëkk la combat bi ñaari at yéen la préparé te gisuñu dara te teewul ñu ngi sàmm suñu bopp promoteur bi xam nañ ni demee ci côté woowu ma ko sa jafal ba di ko lii wala lay ba mu jàppee le six dootu di ko jëlee ak lu mun a xew bu ko joxul cent franc dinaa bëri te ba tey ba sax si joxul ma cent franc mais dinaa bëri ndax ku wér xam sa bopp te ñun xam nañ ne ndaw la da cee nekk nii rek di jaayante ba tey amul jiw extraordinaire kon dañ koy ñaanal yàlla suñu borom kàttanal ko ci daraja yonent bi. mais pour l'instant ku nekk bindal naa la ñaari bolok. bu nekk bu nekk waaw. bu nekk waaw waaw waaye sant samay entraîneur Ousmane Papa Yada góorgóorlu man yàlla yomb ñu leen mel.